waaw waaw ñu duggandoo si biir ak <laughs> waaw dix combats la tey soo xoolee sama drapeau bi ma tuddee woon Ama Baldé man maa ko def espérer xam naa ne Ama Baldé nekk bi te booy ñaa moo koy indi li ma la doon wax rek day ñëw na ñun bu ñu neexee Pikine defar bu ñu neexee am lu ñu waxee rek Pikine yàqu loolu leer nañu dëgg te xoolal ñu nekkoon doon wax yëpp toog dégg nga wan ni man du ma dóor kat lijjanti naa ay million ba taxawal sama lamb te nit du génne ni kii moo nekk ginnaaw Pape Sarr. dëgg la dégg nga dëgg la nit du génn ne Pape maa ko financé mu tëgg ay million mu tëgg lamb dëgg la billaay lii laa doon ñaan yàlla tey yàlla defal na ma ko Pikine nekk na benn billahi wallahi wa bu ñu nekkee benn suñuy defet dañ koy compter billahi mais ñu gis sa taxawaay yaa ngi yaa ci Pikine nekk benn yaa ngi dox ci magi nekk benn yaa ngi dox ci Pikine ñu bàyyi soppi yi nga xam ne moom la ñuy def ci Pikine ndax ñuy génn di wax des fois ñooy indi problème yoo xam ne ni bëri sax duñ ko ñu si doon wax ñëpp lem nañu ba mu rox toog placé nga leen ñoom teg nañu toog nañu parce que xam waa ak mbabu Pikine bi xam nañ ne ñii dañuy yàq mais tey kuy defar tey Pape xam ne lekkul naanu boo amee combat mu yóbbu la si Thierno Ndom Amadou Diarra Pape Gorgui Ndom autorité yi fi nekk Modou Gueye ay ay Ousmane Cissé ñu lay yëkkati ay millions loo xamante ne ñu lay yi loo ko jox kon kooku waroo ko sàggane dañ koo war a dëgg dama ne ngir yàlla war a suuri nii suñu fi di doxee ñu am combat booy yu ndaw tey mun naa ne ne ñun ñoo rawagum parce que suñuy defar dafa néew waaw. man Sadio jaajëfal la bu baax mais du ñàkk du ñàkk ñu laal ci ak yaay bi ku ne xam na ne démb dégg nga Franc Alcuraan du génn def ay sot yoo xam ne dafa dalaat ci boobu Eumeu Sène ne carrément Eumeu Sène indi wul Sénégal dañu ko ràmboo bu fekkee ne moom ñemewu ko na taxaw ne ñemewu ko moo gën lii ngay wax non Eumeu Sène vidéo gis naa ni wala ay vidéo man naa leen génneel ay vidéo yoo xam ne Sène dafa am ñetti ndam dégg nga ak lu mu di demee Eumeu Sène du champion d'Afrique dem na teewal ci Sénégal voilà boo xoolee ba xool nit ku soxor la dafa soxor Eumeu Sène tey bu nekkul woon moom Modou Lo bii di doon roi des arènes parce que Modou Lo bu nañu koo juutal Balla Gaye juutal ko ñu xëy ne Eumeu Sène Modou Lo daaw na Eumeu Sène moo ko may Eumeu Sène mënoon na téye wàcc ne nooy mais daa dem faj mer dem jëli ci Modou tey looloo war a teew mais tey bu nekkoon Eumeu Sène du bëri Modou Lo parce que Balla Gaye la daan ah, Balla Gaye Modou Lo la daan ci jour bi ñu déclaré combat bi muy affaire bu ñu métti affaire bu la nag Eumeu Sène moo indi yëpp tey bu joxul woon Modou Lo lii lii yëpp wax yëpp du Eumeu Sène bu ñu ko ko joxoon ay minutes pour corriger ko. dama ne la moom comme que nangulul Eumeu Sène champion la nangu Eumeu Sène defu bi dara Eumeu Sène lan la koy doy. man bëgg naa ma lay daan daan champion ak ku fi dara loolu laay wax ma ne la Eumeu Sène man Pape Sarr maa ko wax. bis boo jëlee la daan rey si stade maa ko presse. non déggoo ma ne la boo yii ku yóbboo na leen fi bàyyi te maa koy wax estafam yëpp combat yii dafa doy presse waratul bootu si kenn. waaw waaw buñ ko bëreelul na dem bëri ji bisu boppam parce que li xale yi di def lay def li may wax ci Franc li ma koy tëjee mooy Dour Sané mu ngi fii. waaw Aliou Seye mu ngi fii loolu lay bañ a dégg na dem jëli Dour Sané. mais Doudou Sané li ma waxoon yëpp ma génn si moom mooy liet naa Eumeu nga jaar ci moom ba pare. non guy gi ak Alioune Seye duñ jaar ci Doudou Sané man loolu laa bëgg pour sama xol seet il faut que Eumeu Sène bëri Alioune Seye wala guy gi sama xol day seet pour tëj gémmiñu Franc nga xam ne réewal na amul njëriñ na ma ko Eumeu Sène defal rek may xale yu yaru yi saas tëj gémmiñam combat ñu ngi koy préparé ak Modou Anta Modou Anta bu Thiès léegi mu taxaw tuuti moo ci des. léegi mu taxaw mu taxaw Fadel. sama mag Fadel xam nga lu ma koy woyal. Ah. ndax ndeysaan xam naa dafa bëgg loolu. mbaa defa yaat maay.